dal leen ak jàmm mbokk tax na ci yaatal vision ñu daal di dikk ak yéen ci la gën fees fés ñu daal di koy door nag bay yëg néggandiku kii di Nabou Leye ginnaaw nag biñ ko téye lu yàgg ba léegi lu tolloo ci ñetti weer ci kaso bi moom kii di nabu Leye nag ginnaaw ak ak faat jëm ci Abdou Aziz Dabala ñu daal di ko ci tuumal nag ba taxoon nag ñu daal di koy teg loxo yóbbu ko foofee ca Ndungu Siin moom mii di nabu Leye nag mu mel ni ni ki tey dañ ko daal di bàyyi bàyyi yëpp néggandiku loolee nag jur pël polémique bu rëy ginnaaw nag lenn ci askan wi ñoom dañoo jàpp ne kii dina bu lay ñoom ba léegi nag jàppee suñ ne mën naa seet wicc nag ci li nga xamante ni moo di faat googee kon nag ñoom dañoo daal di jàpp ne rek libération Nabou Leye euh, wërta mën a nekk sax jamono ji tembe loolee nag ñeneen nit ca wet ga daal di nag jàpp nag kii di Nabou Leye moom tuuma képp ak ak tiitaange moo ko ñeeloon jëm ci côté boobee ci jamono ji nga xamante ne bii nag faat am na ci Abdou Aziz euh, naataangoom bii di waali loole nag ñenn ci ñoom gisin wi daal wuute lool lool lool jëm ci ki nga xamante ne bii moo di nabu Leye mi nga xamante ne bii da daan ànd ak kii di Abdou asis Dabala daan euh, daan fecci moom nag ñu daal di koy tuumaaloon nag ci faat googale waaye nag ni ki tey jile mu mel ni yoon daf kaa daal di bàyyi bàyyi yëpp néggandiku bu nu sukkandikoo ci xibaar yi nga xamante ne bii nag jot nañ ko jëm ci euh, mbir moomalee